The UDP leader Usainu Dabo has made it categorically clear that his party is against decriminali decriminalization of anti-homosexuality laws in the Gambia. Homosexuality cannot be decriminalized in this country. UDP will be among those who will fight against it, no matter what. We will not accept that law and whosoever advocates for it, we will fight you with our tongues to ensure that you don't succeed, Dabo told UDP online Bantaba TV over the weekend. The debate over the issue of homosexuality and the rights of LGBT persons have attracted all sorts of condemnation from Gambians following attempts by the EU representative to promote gays' rights in the Gambia. The UDP leader, a veteran lawyer, added, if you want to help us based on these issues, then you are not helping us. You want to enslave us but the UDP will not take support from somebody because you want to promote homosexuality. That will never happen in this country. Well, that is Dabo they are speaking um, during the weekend, Mom. daal mu ngi wax ne na kàddu am homosexuality issue bi xam nañ it's not something new since US uh, ambassador bi uh, mu wax ko ñu publish ko fi mu ne waaw au rather uh, mu ne let Gambia to consider legalizing homosexuality or you protect the rights of LGBT loolu dafa am ñu bëri ñu ngee debate about it gis nañ Mama Kandeh jóg na mu ne moom he is against it you know other prominent individuals Sabally ak yooyu noonu you waaye moom tamit jog na mu ne moom duñ ko uh, parti am bi mu ñoom duñ ko musa allow si Gambia fi pour ñu a uh, legalize homosexuality exactly right now it's criminalized ci ci ci réew mi mm. so léegi nag ñoom ñu ne duñ ci ànd ak ku bugg a loolu mm. ci réew mi pour ñu ubbi affaire yi loolu moom duñ ci musa ànd te loolu du musa am ci réew mi te foog naa ne loolu clair ci ni mu ko waxee si seen taxawaay te euh, comme noo ko waxee gis nañ fi yeneen personalities ak ay yeneen political parties APRC GDC euh, ak yeneen parti génn nañ euh, ba GMC sax condemn loolu nee na loolu moom duñ ko accept si réew mi te I think is clear donte ne sax am na ñi nga xamante ne ñu ngee bugg a di xala nas li affaire yi di ko raay raayal ak yooyu bugg a fexe daal naka la gaa amee fii right waaye foog naa ne majority of Gambians woon nañ ne lii Uh, is a no-go area te loolu. baro mooy mooy mooy comme uh, straight mu ne. waaw weda condemn na ko. te foog naa side boo dafa am solo nguur gi war nañoo génn ñoom tamit côté boobu ñu leeralal nit ñi uh, lan mooy seen position ci ci loolu parce que tamit am na ñu bari ñu ngi leen di sànni ay xeer ak yu mel noonu so loolu tamit xam naa ne bu political parties yi génn di wax ñoom tamit war na nañoo génn wax ci côté boobu pour ñu xam naka la daal waaye as far as UDP ñoom tamit génn nañ leeral seen position. mu ngi noonu leneen tamit ñu bàyyee ko ñeneen ñi ah, bu bu baro bi sax even in mu ñëwee es dañ ko interview wa international media yi one of them mm-hmm. mu laajte ko about homosexuality whether dafa consider pour legalize ko in the Gambia waaye respondant bi moo nekk woon homosexuality was not an issue in the Gambia so xawma whether um, you know was not an issue was not clear to the people whether moom dafa consider legalize or dafa teg ne homosexuality nekkut si si si Gambia or or what that was not clear te gis nañ ni ah, Hamat Bah tamit wax na ne it's not an issue in the Gambia but now that ah, ñu bëri ñu ngee debate about it ku nekk daal sànni nga sa kàddu si mbiri homosexuality gis nañ sa one of the prominent imam ah, moom sa ñu bëri dañ ko criticize mbir involvement am bi about this homosexuality issue and all that so Modou Niang UDP tamit ah, sànni nañ seen kàddu si si si am affaire yi homosexualité bi. waaw noonu la mun a demee te foogu ma ne sax benn parti dina génn ñëw ànd ak xalaat boobu dafa nekk xalaat bu nga xam ne dafa xalaat bu tardé la. benn diine nanguwut ko aada ak cosaan nanguwut ko te ni ko fi ñu ma ñaari ustaas yi waxee ñoom gisuñ mbaam yi sax di ko def gisuñ fas yi di ko def gisuñ nag yi di ko def te loolu yëpp nit a leen gën a foor soo waaye nit di ko def soo du yëfi nit tam waaw ayca ñu ñu gaaw to dem waxtu baa ngi raam